أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yeneen tomb tedd bi Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ak yéen ci darsu addis bi nga xamante ni mooy suñu mujjanteelu addis ci addis yi nga xamante ni jëloon nañ ko bëgg koo jàllale ci koor gi ñu commencé woon ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla dimbale ñi jox ñi kàttanal ñi yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax tey nag ñu indi addis bu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi sallam mu ngi leeral li nga xamante ni moo di fitri ak kan la war ak silan lan lañ koy génne ak kañ lañ koy génne ak ñen ñoo ko war a génne mu ne xaddasana بن محمد بن سكن حدثنا محمد بن جهدمي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من التمر أو ساعا من الشعير من الشعير على عبد وحر وذكر وأنثى وشقير وكبير من المسلمين wa amara biha an tuadda qabla xuruji naas ila solaat nee na jëlee nañ ci yaxya bun muhammad bun sakan ñu jëlee si muhammad bun jahdam ñu jëlee si ismaila bun jahfar jëlee si omar ibnu nafi mu jëlee si papam ñu jëlee si ibnu omar radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo farataal li nga xamante ni moo di mudam koor mu ngi ko def saa la benn mu nekk ci tàndarma wala mu nekk li nga xamante ni moo di dugub benn mu nekk tàndarma benn mu nekk dugub wala benn mu nekk si li nga xamante ni moom la dëkk ba gën di utiliser waaye nag loolu mu ngi war lan mu ngi war li nga xamante ni moo di jaam kon képp koo xam ne am nga jaam sa jaam bu muurum koor jotee yow yaa ko war a génnal waaye mu ngi war tamit ki nga xamante ni moo di gor kon war na jaam war na gor waaye tamit war na góor war na jigéen war na mag tamit waaye kasaalika war na ndaw kon képp koo xam ne am nga ay doom yoo xamante ne amuñ kàttanal génn muram koor yow yaay génn seen muram koor na te daal di koy joxe waaye nag nag li may war war warut benn xeefeer waaye nag mu lan mu ngi war ci li nga xamante ne moo di julli ñi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñuy digalaat tamit ñi joxe ko maanaam ñi joxe ko njëkk ñi génn dem si julleekaay ba kon képp ku nga xamante ni tong bañ julli ji ba ñëw nga daal di koy génne. yow amoo li nga xamante ni moo di mu dem koor waaye yow li nga am rek mooy sarax kon nag yonent bi sallallahu dafa wax ne avant ñi jullit yi nañ ko génne ñi daal di koy joxe ñi nga xamante ni ñoom lañ ko war a jox àll bi nag mooy lan mooy ne suur boobu dañoo bëgg ñëpp daal di génn bëgguñ sax ki nga xamante ni ñàkk na daal di fee ak ñàkkam feeñ ba du mën a julli ji moo tax nag ñu ne nañu natt ay muudi koor ñu daal di koy joxe. waaye jamono ji nag dafa mel ni nit ñi dañuy weccoo waaye natteetu mu dem koor ndax dangay gis nit koo xam ne nii sax day jël ab pepp wala jël ab xaalis ne ko demal nga joxal ma ko sa baay diw mu yóbbu ko sa baay diw baay diw moom ne ko taxawal ma natt la joxal nga yóbbul ma ko kon loolu tamit du muuram koor waaye muuram koor dañuy seet ñi nga xamante ni seen doole jotu seen gannaaw waa dëkk bi yëpp kenn ku nekk jël ab dara dem jox leen ko ñooñ nga xam ne danañ am lañ sutura ba bis boobu duñ mën a génn yelwaani waaye danay am luñ ci trol ba mën a dem su julleekaay ba kon ñu ngi neen yàlla yal yàlla nangoo ñu suñuy koor yal na yàlla nangoo ñu suñuy naafila bi jaay nabi naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp lu nga xamante ni wax nañ ko ci addis te mu nekk addis moo nga xam ni dafa daanef yal na yàlla jéggal ñu ko te yàlla yàlla xamal ñi ko ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na na képp ku nga xamante ni dangaa wax benn mbir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te fekk biñ ko wax yaa ko tey te yonent bi sallallahu alayhi waxul wax jooj dana jàppal ne sa dëkkuwaay mooy safara kon nag lépp lu nga xamante ni firi nañ ko te nekkul noonu ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla jégal ñu ko te xamal ñu ko lu ne nañ ko te mu nekk noonu ñu ngi ñaan yàlla lay say sawaab yàlla na yàlla ko suñu kaw bi nabi na muhammad sallallahu alayhi wasallam koor gi bépp ngëneel gu nga xam mu ngi ci biir koor gi ak bépp ngëneel gu nga xam mu ngi ci guddeeg laytul qadri ko suñu kaw bi jaay nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yëwénal suñuy mbir yëwénal seeni mbir te def ci suñuy poos dara bi jaay nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu xaamin wa antum wa nahnu bil alfi xayri wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taalaahu wa barakaatuhu